আসসালামু আলাইকুম asalaamaaleykum wa maa ngi wax ak mbokki Sénégal di wax ak mbokk àdduna le temps ñu partagé nodd bi jàll ñu yëkkati quelques kàddu Euh, asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokk àdduna asalaamaaleykum àdduna wérngal képp démb ba léegi euh, sunu téléphone yaa ngi sonné nit ñi di ñu laaj sunu réaction muy militant yi muy mbokk yi muy am di jàmm yi ñëpp a ngi woote pour euh, taataan sunu ay kàddu dama bëgg nag kenn ku nekk dégluma ak xel. kenn ku nekk dégluma ak xel naam sax jamono jiju dama nay wax waaye waxu tey bi mënta ñàkk ndaxte ñépp xam nañ ne ci suñu xeex ci sunu taxawaay ci réew mi ci principe kese ci dëgg kese moom la jiital ci sunu lépp moom kese itam la ñuy ndamoo parce que moom la ñu am dina am ñoo xam ne li ñuy yàkkamti muy signaler live bi mu dagg mais noppalu leen seen bopp parce que bu fii daggee feneen am na kon bu yeboo ngeen muñ ngeen toog ngeen déglu xëy na di ngeen ci jële dara yéen ci seen bopp démb ba tey dañu jàpp Ousmane Sonko këram bu ñu koy jàpp ñu dajji buntu këram yéeg ci ay oto muram dugg ci këram jàpp ko yóbbu nit ñi duñu laaj suñu xalaat ñu ne dañuy déglu ba xam balaa ñu wax surtout ku mel na man parce que bëgg naa lu may wax lu ne mu leer ma te bëgg naa lu may dugg lu ne itam mu leer ma démb Ousmane Sonko bind ci page am procureur wax waxam waaye joxe rendez-vous bi su bii ni dina wax ñu koy déglu am na sax lu ñu jotoon a jàpp démb ay xol waaye procureur su ma yeboo ne alhamdulilah alamin alhamdulilah ndax démb bala procureur di wax ku àndoon ak merla ndax damaa jàppoon ni arrestation boobu mënoon naa ñàkk coow loolu am buntu kër Ousmane ak xëccoo boobu mënoon naa ñàkk ndaxte ku am kudd doo lakk te ku am ay njaboot waroo defal sa bopp waaye procureur tey dafa leeraal mbir mi dafa wone ni mbir mi du li am demb kër Ousmane Sonko moom moo sabab arrestation bi li ko sabab wax na ko teg na ko itam jëli ay vidéo collage montage bu amul benn qualité fu mu jëlee ay wax rek mu dajale ko collé ko colmaté ko diffusé ko 2021 ba tey ba li mu wax semaine bi passé mu dajale ay waxam daal di ne lii yépp lañ ko toppee appel à l'insurrection door a wax ne li am démb prétexte la kon lu ñu metti woon ci lu amoon démb rek dañu koy effacer sénégalais yi lay waxal askanu Sénégal yéen ñi àndoon ak ñun ci xeex bi boobu ba léegi taxaw boobu ba léegi tëpp kenn seen ku nekk démb ba léegi am nga lu la metti yaa ngi toog di déglu yaa ngi naan lii lan la lu Ousmane Sonko di dooyee téléphone u jàmbur vol lañu wax ñu waxante dëgg ndax dëgg la yàlla bëgg lu dul dëgg yàlla bëgg ko te ñun ci dëgg rek lañuy dox duñu dox ci lu dul dëgg bu fekkoonte ne li am démb képp lañ toppee Ousmane Sonko kon xëy na ku mel na man dinaa toog duma wax ndax lu ma ànd ànd ak lu ma far far ak Ousmane Sonko duma accepté loo xamante ne duma ko mën a lay sama kanamu sama boroom ndax dinaa ne lan moo tax Ousmane Sonko di jël téléphone boobu même su fekkente ne kenn amul droit filmer ko ndaxte moom am na possibilité porter plainte am na possibilité def recours naam sax justice amul mais ko am kuddu doo lakk ana ay garde kooram xale yi ko bëgg kum ci owoon nga ñëw faj ko ñi mu àndal kum ci bàyyi woon nga faj ko moom am na image am am na vie privée am même su fekkente ne homme public la amu leen sañ-sañ di ko fekk buntu këram di ko traqué tëj ngeen ko këram cinquante cinq jours xamu leen ci yan condition ngeen ko tëjee xamu leen ci yenn condition la nekkoon ci biir këram ngeen tëj ko fa ba mu neex leen ngeen dindi seen i jékki bàyyi ko mu choisir bàyyi ba bisu julli bisu jumaa mu xool ngëm-ngëmam mu dem julli ji ba ñibbisi ngeen koy xoqatal encore une fois di utiliser jigéen di ko filmeloo waaye wane ngeen ni lii yépp metti woon ñu démb ba tey ñu koy ruuma daat ci ay xel yéen a ko def yéen la neex yéen a ko tey yéen a ko tey yéen a ko def loolu ngeen wone ndaxte kuy filme nekk renseignement généraux di nëbbatu di làqatu doo def lu lay gisee doo def luñ lay identifier mais yéen a ko tey ngeen ne prétexte ngeen doon wut procureur nee na l'arrestation de Ousmane Sonko était imminente était imminente donc ça veut dire que tôt ou ci loolu ngeen jëmoom donc je veux préciser au Sénégalais ñi am ay jiixi jaaxa ñiy toog ci seen ay kër ñi laam-laame ak ñi nga xamante ne ñu ngi topp ñi war seen ay dàll démb ba tey di wër di wax naan complot la ay deal la ay organisation la ay Ousmane Sonko ay porte de sorti ay contumace ak yu ma xamul loolu yépp dara amu ci loolu yépp dara amu ci sénégalais sénégalaise askanu Sénégal yépp na ngeen xam ni li président Macky Sall namoon deux mille vingt loolu la nekk di exécuté virgule dañu ci barki démb kese dama yëkkati kàddu ci julli ñaanal ko jàppoon ni moom ndekete dafa bàyyi mais ndekete mësul dem bay bàyyi démb ba léegi ku ne wax na ma lan nga xalaat ci lii Macky Sall moo defati ma ne du ma tudd Macky Sall ndax Macky Sall nekkuloon foofu ci mbedd mi ndax ana Macky Sall ak rg buy filmer ana Macky Sall ak ku ñu violé intimité di ko filmer te amuñ ci droit mu réagir Macky Sall man mënuma ko ci tudd waaye tey bi procureur waxee lépp a feeñ Macky moo ne ci kanam mu ne ci digg bi moo nekk ci fin bi te toujours nag bu koy def nii la koy defee dafay bàyyi ba takk ay bagaasam génn dëkk bi voyager yëkkati sunu réew mi yëngal ko bàyyi ñu ak sunu bopp dafa am ñoo xam ne xëy na dafa des mu leer seen bopp man xam naa ni heure bi du wax du heure wax man xam naa ni heure bii du heure live mais daf ci am solo parce que dafa am ñoo xamante ne dañuy déglu wala dafa am lu leen dese leer dafa am ñoo xamante ne dafa leen dese leer parce que dafa am ñoo xamante ne dañoo toog seen kër jàpp ne ñoo dafa am benn benn deal benn entente bu am diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall moo tax ñu jàpp ko pour lever la contumace dama ni dara du ci dëgg yeewu leen. dara du dëgg ci loolu li président Macky Sall namoon li mu namoon ci deux mille vingt loolu le exécuté nii xaajul bay bàyyi xaajul bay dellu ginnaaw les gens se sont tout le monde s'est trompé ñëpp jàppoon nañu ni malgré que am na lu ñu dese lool dañuy déclipser moment bii. moment bu ñu bàyyi la dañu teggi seen loxo dañu bëgg jàmm dañu bëgg seral moo tax ñu ngi libérer nit ñi moo tax ñu ngi lever ay barrières ndekk te loolu yépp lever les barrières c'était pour desserrer l'étau jàpp ñi nit ñi na nañu féex nañu bàyyi ba au moment mais toujours les mêmes pratiques hideuses pratiques yu ñaaw yu salte bisu julli bisu assura bisu ajjuma bis bu tedd boobu ci la ñu profité ci la ñu daxa exécuter seen décision jàpp nit ki yóbbu amoo looy wax yow procureur lu dul di tegle ay wax appel à l'insurrection ma Ousmane Sonko waxu fi lu fi Macky Sall waxul woon waxu fi lu fi Macky Sall mësta wax parce que Macky Sall taxaw na fi ne on va déloger Macky Abdoulaye Wade au palais on va sortir cent mille jeunes dans la rue il faut ngeen arrêter il faut ngeen ñuy respecter gis nga réew mi luñ fi mayul ñi fi jaar duñ ko may Macky Sall koy ndeel koy nag ngeen di def mooy tànk ak tànk benn par benn di ko di ko yoot dama bàyyi bokkuma waxoon nañ la génneel sa loxo ci ndab li ndax xam na ni xaajoo bay bàyyi ndax bàyyi bi nga bàyyi ñàkk pexe moo tax donc on se demande que tey peut-être c'est le bon moment parce que nit ñi bàyyi nañu tuuti ndax ngeen seen bopp ndax ngeen seen bopp du càggi du bon moment wala mauvais moment ndax man de Bousso li ma waxoon démb moom laa waxoon tey ndax samay kàddu toujours dama koy xool liñ leen wax dafa leer élection ci mim réew kenn du ko fi def di tànn ay candidat kenn du ko fi def di écarter le candidat Ousmane Sonko pas parce que dafa nekk nekkul justiciable bu tooñee da ngeen ko war a teg ci yoon mais da ngeen di respecter ay droit am bu ngeen koy teg ci yoon da ngeen koy respecter bu ngeen koy teg ci yoon ndaxte ko topp nga ne ba 2021 ba tey nga décider yow le moment de créer l'incident bu nga xam ne mooy sa déclencheur nga teg ko fan bi ngeen ko naroon jàpp lu tax ngeen barricade ko 55 jours xañ waa Ziguinchor seen maire xañ ko si xañ ko liggéeyam xamul leen nan lay dundalee njabootam xamul leen ci yenn condition psychologique mentale ci la nekkoon ngeen teg ko fa mel ni ku yor say kaña di këpp di këppati ba mu neex leen ngeen dindi seen i barrière ba mu neex ngeen créer seen ba mu neex leen ngeen ko ràpp jàpp ci kaso génnee seen vidéo bi nga xamante ne démb ba léegi na nga koy monté mënu leen pare liñ leen waxoon ci loolu lañu nekk ba tey liñ leen waxoon ci loolu lañ nekk ba tey dëkk bii moomu leen ko dañu xeex ba jox leen ko amu leen sañ-sañ teg benn stratégie boo xamante ne da ngeen di décider kan moo fi toog ëllëg ak kan moo fi du toog ëllëg mënu leen loolu président Macky Sall mënuloo loolu sénégalais yéen ñu toog seen kër di jeex jaaxa yéen ñu toog seen kër di déglu yéen ñu toog seen kër jàpp ne non affaire bi ay entente la seen ay nit rek la ñu yebal ñuy wër télé yi di wër plateau yi di wër presse bi di bind ku ne ci ñoom di wax noo noo noo lii dil la li organisation arrangement la benn arrangement amu fii benn arrangement amu fi procureur li mu wax démb moom moo ko listé moo ko bind li wax sànq wax bi yépp leer na wax bi yëpp leer na pour mu pour mu rek amul woote loo ci xalaat noo ko gisee nii laa ko gisee sama gis-gis mu ngi nii may wax li ma gisee mooy combat bi nit ñi mené woon 2021 ba léegi combat boobu moom moo nekk di continuer loolu laay gisee parce que procureur bu jógee taxaw ne li fi amoon lépp ba ci moor doom yi ba ci manifestation ba ci événement yi mu jël lépp imputé ko Ousmane Sonko te boobu génnee na ci moom ay force de l'ordre ak de défense am ba pare moom génnee na ci moom gouvernement bi pourtant procès amu fi enquête amu fi kon procureur ci lan la war a mën a sukkandiku pour ne Ousmane Sonko mooy responsable de tout ce qui se passe dafa am benn enquête bu bu incriminé Ousmane Sonko te nit ñi yëguñu ko ban procédure moo fi egg ci li ñu waroon def ci ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu jël ñun porte leen plainte yóbbu leen CPI milice ñuy wax barki démb jàpp leen xale yi ñu tëj ci morgue bi ana procès verbal yi lan moo war a mën a tax ñu ne moom mooy le responsable parce que lu ñu namoon la buntu nag jaaree nañ ko. jël nañu complot Adji saar jàllul sénégalais yeewu jël nañu affaire diffamation boo xamante ne ñëpp ko wax nit ñi yeewu jàllul ils se sont dit nañ ko jaarale nag fii ci appel à l'insurrection nañ ko dajale bu fekkente ne appel à l'insurrection moom ngeen jàpp ne moom la Ousmane ko def kon yéen da ngeen a tardé parce que ba mu dalee wax ba léegi tey ngeen xalaat tey ngeen ko war a jàpp tey ngeen ko war a jàpp fii nag gis nga ay mot d'ordre amu fi toog ci ay internet di wax nañu jóg leen ngeen xeex wala génn leen nga xeex man du ma ko defal kenn parce que kenn ku nekk sa responsabilité bopp nga yor man sama responsabilité bopp laa yor li ma li ma war man man maa ngi koy def te dinaa ko def ku nekk li la war yow xam nga ko parce que su fekkente ni procureur jàpp ne ñun xëy na dañoo jàngul wala ñun dañoo yeewul ba dañuy taxaw ci ay internet di def ay ay appel à l'insurrection pour nous faire arrêter ñun mag nañu loolu parce que ñun on n'est pas des lâches on n'est pas des lâches on n'est pas des gens yoo xamante ne dañu saraxe suñu bopp c'est pas ça qui est important ce qui est important mooy que nit ñi xam ce qui se passé ici boobu ba léegi projet boobu rek moom moo nekk di continuer Ousmane ko dafa am projet am ñu jël benn projet taxaw pour liquider ko moom personnellement tere ko bokk ci élection yi yoon bu ne jaare nañ fa ñu am yoon tey nag dajale nañu seen mbir jàpp ni tey c'est moment ñoom ñoo jàpp ni c'est le moment léegi nag askanu Sénégal moom mooy décidé askanu Sénégal moom mooy décidé li am ba am mooy élection yi du tey élection yi du tey du suba élection yi c'est en deux mille vingt quatre kon bu yowoo ngeen xam ne euh, sénégalais yi ma gis askan bi ma gis détermination bi ma gis ci ñoom ak wax bi ñu wax ne président Macky Sall dootoo tànn kenn kuy bokk ci élection dootoo ñu tànnal suñu candidat doo tànnal sénégalais seen candidat amuloo sañ-sañu def sa ay lëbëj wala def sa ay njuuj njaaj wala def sa ay complot wala def sa quoi que ce soit ba fexe yow ba choisir au destiné de Sénégalais loolu gëm naa ni tey ci gën a dogu tey lañ ci gën a dogu loolu gëm naa ko loolu gëm naa ko donc live bi du gudd suma xalaat laa ci bëggoon wax suma xalaat laa ci buggoon wax ndax démb ba léegi Les gens nous interpellent de partout. Les gens nous interpellent de partout. ñu doon déglu nag ba am ci version bu leer comme midi naam sax xaaraatuñu woon xaar dara loo xamante ne lu lu lu lu transparent la lu jóge ci nguur gi xalaatuñu woon lool mais foogoon nañu ne bu ñu demee ñoom bay jàpp Ousmane Sonko dinañ teg suñu loxo lu yenu maanaa dinañ teg suñu loxo lu yenu maanaa mais dajale sa ay vidéo def sa ay montage dagg moo fii dagg moo fee lu waa ji wax fii ci conférence de presse lu mu wax fële su fekkente ne loolu la kon ngeen arrêté tous les leaders de de Yewwi Askan Wi su fekkente ne li Ousmane Sonko wax ci ay déclaration politique te mu am ci droit moom ngeen ko jàppee vous n'avez qu'à arrêter tous les leaders de l'opposition y compris Macky Sall parce que fii amul benn leader bi politique boo xamante ne mosoo fi yëkkati ay kaddu wax sa xalaat wax sa sa position ça n'existe C'est un combat qu'on mène. Dire on, on mène un combat ne veut pas dire on mène la guerre. Maintenant, dinaa ko yemale foofu dans un premier temps. duma sax sore ci ci commentaire parce que tu des gens surtout góor ñi nga xam ne ay góor lañu dañuy toog di wax yéen dem leen ngeen xeex moo gën ngeen di wax. mais aussi bëgg naa dalal xelu. ñi nga xam ni xëy na ñoo jaaxle ñi nga xamante ne ñoo jàpp ni tey bu dara sottiwul da lépp lépp c'est raté la fois gis nga nit soo gëmee li ngay def waroo yàkkamti soo gëmee li ngay def waroo waroo waroo waroo am doute te gis nga ce combat qu'on est en train de mener contre le régime de Macky parce que il s'agit bien du régime de Macky Sall il s'agit de Macky Il s'agit de personne d'autre que le régime de Macky Sall. Il s'agit de Macky Sall lui-même. Qui n'a pas d'autre choix parce qu'Amatoul est soutien sur le plan international. Montre m'a renoncé à sa troisième candidature, mais il n'a pas renoncé au Sénégal. Il n'a pas renoncé au projet Bimou Amon pour tek l'homme du Sénégal, Mungichi Bataille. Tu l'olo la nek. L'olo ne ko nyep ham. Ne nyep ham ni, sous avenir, si situation yi, mom l'en koy en charge. Mom l'en koy entre nos loolu na ko Sénégalais yëpp xam na Sénégalais yëpp xam ne notre avenir de demain ce que les Sénégalais décideront qui choisir c'est un combat continu et c'est le même combat de principe moom moo nekk fii di am rien n'a changé rien n'a changé on aurait pu se dire que non mbir mi mbiru ñaari nit la kenn moo jotee ak kenn mais procureur moom moo ko wax moom moo ne moom moo teg instru élément procureur moo tek vidéo yu Ousmane ko doon wax 2021 ba tey bàyyi man sumay bos bàyyi bosu leaderu Yewwi Askan Wi yëpp bàyyi bosu leaderu opposition bi bàyyi bosu leaderu APR yëpp nga xam ni yëkkati nañ fi ay kaddu dans la politique di menacer des opposants di saaga ay opposants di leen même menacer de mort mu bàyyi leen ñoom ñëpp ku ne nga dox sa kër ku ne mu bàyyi la nga dox sa kër mais mu ne mel nu Ousmane Sonko la ci seet ci jàpp ko ngir loolu kon nag moom moom moo wax moom moo feeñ li mu namoon jaarale ko bunt bu nekk dañoo bëgg lëndëmal seen xel yi nag tey parce que tey dañ ko jaarale ci benn banal histoire bu am buntu kër Ousmane Sonko ñu bëgg ko jaarale ci histoire boobu pour bëgg leen xamloo ne leen non lii benn problème individuel la bu Ousmane Sonko am ak benn agent renseignement généraux mais keneen ñi du dëgg du dëgg ndax ci biir waxam moom procureur moom moo yay boppam ndax moom moo ne l'arrestation de Ousmane Sonko était imminente lii c'est juste un prétexte donc wax bi leer na wax bi leer na ku doon layam layami ne mënoon na am waru woon wax ak kooku waru woon arrêté téléphone waru woon jël téléphone waru koo dugal ci biir kër gi waru koon génne ku doon wax loolu yëpp jaratul wax bi parce que procureur nee na loolu taxum li tax mooy ay compilation de wax ku am sañ-sañu nag politique am sañ-sañu opposition am sañ-sañu wax sa xalaat am seen sañu joxe sa opinion c'est comme ça qu'on fait l'opposition et on va continuer à faire l'opposition avec la même la même posture su ngeen yaakaaree ñu ne mun ngeen taxaw infiltrer les réseaux sociaux jël seen xaalis def li ngeen def parce que lii yëpp c'était prévisible depuis des jours les gens de la paillère ñu ngi jubilé ñu ngi jubilé naan Ousmane Sonko dañ koy jàpp da ngeen jàpp ne mën ngeen jàpp Ousmane Sonko mën ngeen jàpp Ousmane Sonko dama leen di fàttali Nelson Mandela ana ñi ko jàppoon ana ñu jàppoon Nelson Mandela te ko ci kaso 27 ans est que tere nañ ko mu arrivé ci li mu waroon arrivé au destin de de l'Afrique du Sud loolu yéen laa koy wax yéen ñi ànd ak Ousmane ko te ngeen war a gën a tax ku taxaw te ngeen war a gën a dëggal seen bopp te ngeen war a gën a xam ne li ngeen bëgg da leen koy jaral te ngeen war a gën a xam ne lii ngeen bëgg waru leen ci àpp fan ñaari fan at ñaari at fukki at ak fukki at ak juróom-ñaar li ngeen ci war a àpp mooy tôt ou tard vous allez vaincre ce combat tôt ou tard vous allez gagner loolu moom laa amoon lu ma ciy wax di leen ko di leen ko jox ngeen fasaale ko di leen xamal ne leen xeexu dëgg ku koy def doo yàkkamti ku koy def doo yàkkamti dëkk bi amul justice tax bu justice amoon nit du jël kër nit barricade ko këram génnee ko jël ay RG teg ko buntu këram di ko filmer ek ko pression pression psychologique Ousmane Sonko ko traqué comme un animal comme un animal Il est traqué dans sa maison, traqué dans sa chair, traqué dans sa vie privée, traqué jusque devant sa propre, son propre domicile. mais ñu ko dara amul lu ñu ko teg teguñu ko benn opposant fii ci réew mi ko benn opposant fii ci réew mi su fekkente ne yéen ñu nekk ak Macky Sall amul leen lu ngeen di jubiler lu dul bu ñu jàppee Sonko ngeen ne dëkk bi tàkkul kenn deewul yéen a ñàkk jom yéen a bon yéen a yées ñi di dee ay sénégalais lañu comme yéen ñu ngeen war a feexe mooy xeex ba kenn bañ a dee xeex ba dëkk bañ a tàkk xeex bu dëkk bi bañ a yëngu parce que ñun ñoo bokk dëkk bi mais ni ngeen ko bëgg a jàppee da ngeen nax seen bopp billaahi da ngeen nax seen bopp teg suñu bakkan yi ñu ngi dund ñu ngi nooy ñoo ngi dund dañu continuer di xeex loolu bu yeboo ngeen xam ko bu yeboo ngeen xam ko kenn du leen bàyyi ngeen di saraxe wala ngeen di sacrifier Ousmane Sonko ngeen teg ko fan li ngeen ko teg mu di ko dund opposition kese moo tax mu di ko dund bëgg réewam ak position moo tax mu di ko dund su accepté woon seen dil yu salte yu bon yooyu kon du ngeen ko ko teg ba tey Ousmane Sonko nag du jëmmam moo ñu amal solo parce que ñun faruñu ak moom ñàkk farak moom moo tax situation bi mu amee démb ñu taxaw di déglu di xaar lan moo tax lii am yéen a ko wax nag yéen a ko wax yéen a wax ni da ngeen koo toppee ay waxam waxam yooyu genn waale gi ñu ak moom ñoo ko bokk parce que ñun ñoo ko waxandoo ci biir yeewi askan bi am na wax yi mu xam bi mu koy wax ñu ngi toog ci wetam bunt bu ne jaar ngeen fa bunt bu ne jaar ngeen fa fu ngeen jaar yàlla mayu leen ndam à chaque fois ay jigéen ngeen di utiliser fu ne jaar ngeen fa complot ngeen ko sosal ngeen ko lu ne def ngeen ko mu leen ci am dam tey ngeen jaarale ko fii bu jàpp bi sax jàpp bi rafet waaye non dafa séquestré benn téléphone moom moo ko wax lu tax ngeen koy filmer topp nit ki xamul leen lan mooy lan lan lan lan moo nekk ci jàpp ni tëj ko këram cinquante cinq jours cinquante cinq jours xëy ba mu neex leen ngeen jëndi ko comme ça topp nit ki di ko di ko di ko di ko puus di ko puus di ko puus su fekkonte ne moom moo craqué su fekkonte ne moom moo tax ngeen jàpp ko kon tey ñun duñ ko jàppale ndax dañuy wax ne ko mënoon na bañ leen fekk si seen piège mais yéen a waxal seen bopp seen gémmiñ ne du loolu moo tax ngeen jàpp ko yéen a wax ne c'était imminent da ngeen ko doon xaar bis bu rafet ngeen doon xaar seen bis moo salte mooy ñaaw bisu asura ngeen ko jàpp bis bii la ñuy lim bisu démb bi ngeen ko jàpp ci bis boobu la ñu compté ñi nga xam ne ñoom ñooy dund ren ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy dee ren kon yéen atte ngeen seen bopp yàlla atte na ba pare yàlla noppi na ba pare ndax yàlla compté na démb ñi ci atu ren bii continuer démb ñu waroon dee ci atu ren bi kon nag wasalaam wax bi jeex na.